di nuyu mbooleem ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar di rafetlu daje bi ñu daje tey ñëpp xam nañ ne démb lañ doon màggal ku tedd ci yoonu murit muy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké nekk ñaareelu xalif général des mourides ñëpp gis taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci yoonu sëriñ Touba ak lépp li nga xamante ni gis nañ ko mu contribuer ko ci lislaam bi waaye ci yoonu murid wi loolu tax na ba événement yi nga xamante ni amoon na ci semaine bi xëy na àddoo gu ñu ci woon waaye bu ñu rombee loolu rek jot na ñu daje waxtaan wax ci loolu ñëpp xam nañ ne dëkk bii di Touba sëriñ Touba daf ko sañci ci lan ci jaamu yàlla ci taxawal diine ci dëgëral lislaam dëkk bi sëriñ bi lim fi bëgg ñëpp xam nañ ko wax na ko mu leer naññ xasiida gii di Matlabul Fawzayni mooy constitution bi nga xamante ni moo tëgg dëkk bi moo tëgg aussi nan lañuy ñuy nekk ci dëkk bi ci biir loolu nag gis nañ fi ci semaine bi ñu génn muy bi bii passé ay événement yoo xamante ni ay xew-xew yoo xamante ni méngoowul ak dëkk bi muy ay xew-xew yu ñaaw yoo xamante ni def nañ ko muy trouble boo xamante ni ñi ko dund dëkk Touba ñëpp ànd nañ ñaawlu loolu am ñëpp xam nañ ne ñi ko def dañ leen a jële ci yeneen dëkk andi leen ci dëkk bi defloo leen loolu muy acte boo xamante ni bu ñaaw la ñun nag ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni ñoo fi daje tey ñuy déplorer loolu di ñaawlu loolu. comme ñun ñëpp nous sommes interpellés mën nag. li ma xalaat mooy dégg naa responsable Sonko mu ne ay gëri yu la soxla moom na xam ni am na ay gëri yu taxaw di ko xaar li fi xew keroog def ko fii ci département Mbacké loolu fi amati et loolu nag je vous donne rendez li fi am keroog mu bàyyi Ziguinchor bàyyi Bignona ñëw ci dëkk bi et récemment li mu wax lu garaaw la nee na pourquoi tout le temps manifestation bu amee Bignona ñu leen rey lu tax réew ñu waa Mbacké kon ñun interpellé nañu ndaw ñi laay waxal xeex bi xeexu ndaw la maanaam bu ñëwee nañ ko teg suñu bakkan bi beneen li may daanalee mooy ñun amuñu benn candidat benn candidat lañu am muy plan A muy plan Z benn candidat lañu am mu tudd Macky Sall te loolu nag lu jaral ñoom nañu ko jaral monsieur le ministre fi ñuy daanalee mooy cadre bi ñu teg. muy cadre boo xam ne nii képp kuy tuddoo président Macky Sall yaa ngi ci gis sa bopp na bañ loo xam ne nii pour conférence de presse président soxla ñu ko taxaw waaye itam ñu ràññee la ñoom ñoo di président loolu nag président jox na jox na leen ñëpp cër tey moom moo soxla moo nekk situation boo ne boo xam ne ni kenn ku ne na fàtte cëram taxawu président parce que mi ngi def waaye war na sentir ni fi muy def ni nit ñi ko taxaw. fi may daanelee monsieur le ministre mooy ñoom def nañ fi mobilisation mais dafa mel ni président amul ay nit fii nañu woote rassemblement bu mag investiture comme ni ko Pikine defee keneen def ko fa mën nañ ko on a les moyens on détient le pouvoir li ñu détenir buñ jàpp ne buñ considéré suñu bopp opposition dañuy nax suñu bopp on détient le pouvoir nañu mobiliser fii wan président Macky Sall mooy suñu candidat merci beaucoup. damay wax ne Touba. dëkk la boo xam ne dëkk bu am solo la te ku fi dëkk war ci bàyyi xel damay jàpp ne dëkk boo xam ne yonent yàlla Isa moo ko njëkk laaj suñu boroom laaj ko ko mu ne ko daa am kuma ko dencal koo xam ne nit la koo xam ne bu egsee ci jamono lépp loo xam ne yonent bi ci taxawaay yi dana ko àggale ndax garab la goo xam ne sajaratun xarabtaha bi yadi man suñ borom maa ko jëmbat ci sama mu ne wa barduha bardul kafir wa taxmuha taxmu san jabil mu ne garab la goo xam ne man maa ko samp ci sama loxo garab la goo xam ne ku fa nekk dootoo xiif dootoo mar waaye laj ko lañ lay xeeñ ma jàpp ne googu garab ku ñëw di fa xeeñal ay punu danga ngaa tooñ Cheikh Ahmadou Bamba ma jàpp ne garab goo xam ne ku fay nekk dangay ngay lekk lu neex kenn waru fa dugg ci picc gi jàmboor di fa sàcc di lekk ma jàpp ne Cheikh Ahmadou Bamba li mu woote ci Touba ñi nga xam ne dañu tudd seen bopp di tudd Cheikh Ahmadou Bamba tama bokku ca war nañoo moytu Serigne Touba ci dëkkam bi waruñu koo jëndee benn politicien ak ku mu mais tey nag damay am kersa ay sëti sëñ Touba yoo xam ne dañuy tuddee seen bopp Cheikh Ahmadou Bamba tañ bokk ko doon sëti sëñ Touba lu ñuy wax ci dëkk bi ci lu ñuy tere wala luy xotti war may muy jóge ci ñoom loolu lu ñaaw la te la war nañ ko moytu booy tudd sëñ Bamba di tudd sa bopp war nga xool doxin wa sa maam doon doxi nga di ko dox waaye yow li ngay roy sëñ bi li ngay wax di tudd sëñ bi amu ci lenn loo xam ne yaa ngi cay tudd sëñ bi ci dara loo xam ne du sa warugar du liggéeyal sëriñ bi du samp daara du jàngale alxuraan du lenn lu dul saaga ay kilifa yoo xam ne sa baay lañ baa sa maam sëriñ Tuubaa sañciwul loolu dëkk bi tool nag bu ñu ñëwee maa ngi fàttaliku président Macky Sall bi mu nekk opposant daf ñu doon wax ne bu ngeen tollee vingt-huit na ngeen seen wii wii wii oto foofu lañu ñu war a tere ngeen tere bu ngeen duggee ci dëkk bi rek arrêté su ngeen duggee ci dëkk bi bu may julli ci bàyyi leen maag sama bopp dem leen ci image yi kan moo ma mën a wax benn yoon boo xam ne président Macky Sall mi ci biir jumaa ji di julli gis ma ci ab image ma ne ci biir jumaa gis na ko ci ba tax na fi mu toll nii lu bari sax buy ñëw ci jumaa ji damay moytu du ca bopp lu baree bari du ma wax nag yëpp waaye lu bari nag président Macky Sall war maal gi mu waral maal Serigne Touba ba jot ci réew mi kuy laajum réew demal nga roy ci moom ci doxi boobu mais ñëw ba ci dëkk bi ñu wax la ne la li ci gën a garaaw te mat a ba xel mooy bu ngeen fàttalikoo dafa def point de presse moom Ousmane Sonko wax ni moom day digganteem ak day woo sëñ bi pour gis ko mënu koo gis diggante boobu sëñ baa nga Porokhane opposant bi yëpp ngay dem di ko gis moom mu lan bi muy ñëw tuubaa dafa annoncé ne damay dem ci jumaa ja bu ma fa jógee Mbàkke laa jëm. mais turu mun Muntaxa feeñu ci waxul ne da koy seetuwaat bi mu duggee Touba jumaay ci corniche bi ca la naroon a jullee bi mu wàccee ñu ne ko sëñ baa ngi fi mu ñëw ci sëriñ bi wan ko ne ko boo nekkee ci jumaa ji ma gis la daje yow ci jumaa ji rek kama ñëw li sama yoon nawu ci waaye nag taaliba yi danañ mitin ci jumaa ji te kenn du ci man dara mu jëli ay nit ca ñu ñëw mitin ci biir jumaa ji ñu ngi koy ñaawlu yemuñu ci loolu ñu taal ay ponu ci biir jumaa ci dëkk bi musu fee am loolu nag tey lu garaaw la te lu mat la ma jàpp nag ne ñiy tuddee seen bopp ak taalibe di wax ne bu fi sëñ tubaa nekkoon natt bi lee ñuy teg Ousmane Sonko xeexoo mais bu fi sëñ Touba nekkee doo xeex loolu day tooñ nañ yoonu murid bi yëpp mais tooñ nañ Cheikh ñun nag loolu engagé wu nañ ci ñun waa parti bi yëpp waa coalition bi yëpp loolu ni ñu ko waxee dootuñu ko may kenn. ñu ngi wax ne ñu ñëpp nañ engagé wu takkaat suñu bopp kenn soxlawul ñun suñuy te tey mooy inversir suñu candidat deuxième quinquennat ñu ci loolu lañ ne ñii wër di wax nag kenn du leen joxum réew ñu koy taal dëkk bi duñ ko taal réew bi duñ ko taal nañ suñu candidat deuxième quinquennat mais nag yamuñu ci loolu li ñuy wax mooy ñun ñëpp nañu ànd nekk benn kenn ku ne sa diggante ak sa morom lu ci nekkoon ci lu dul noonu na nga ko fàtte dañu fas yéene fàtte xool li ci suñu kanam muy président Macky Sall kenn soxla buñ fi jëlee kenn ku nekk di guddal nopp wala leneen dangay yàq rek mais amul jëriñ nañu arrêté yooyu xeex ak xuloo ak werante ñu bu ñu tiré conclusion yi mooy ah, aussi ñun ñëpp muy toute la coalition Benno Bokk Yaakaar te tey jii élus yi daje fi yi daje fi coordonnateur zone yi daje fi les grands responsables daje ay militants daje ñoom ñëpp nee nañu ñu ngi fàttali seen coloré ak seenu jàpp ci président Macky Sall ñoom ñëpp aussi maase nañu ne président Macky la le Benno Bokk département de Mbacké mooy seen candidat en deux mille vingt quatre moom la ñu investir ñoom ñëpp maase nañu ne pare nañu pour le grand meeting régional d' investiture ñu ngi déglu la direction du parti ban xool yan consigne lay joxe pour ñu mu respecté ko loolu mooy li nga xam ne mooy ñaareelu kàddu bi ñetteelu kàddu bi mooy ñëpp wax nañu ne war nañoo xool naka la structurer. sunu ànd naka nañuy fekk ba nekk kuréel ñu ne kon jël nañu décision ñu ñi fi daje di la l'écrasante majorité de la coalition Benno Bokk Yaakaar muy allié muy élu muy ministre muy maire muy grand responsable ku ku li xam parti bi tey xam nga ne li fi daje foog naa ne yéen journalistes yi vous en êtes témoin ñooñu décidé nañu créer benn cadre boo xam ne dañ koy tuddee la coordination des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Mbacké danañu daje weeru di jet def ay réunion tëral benn plan d'action dem dans les zones de Touba dans la commune de Mbacké dans la commune rurale fenn fu nekk ñu dafa mener ay action d'animation pour préparer les élections de 2024 donc day mel ne loolu mooy ñaareeli ñetteelu pañ mi yaakaar bi mooy exprimer nañ fi nit ñi nu ñu bëggeeku leen jàppale loolu président bi ngi ci kenn ku ne gis li nga xam ne noonu jàppale gox yi ak gox goxaan yi li nga xam ne def na ko ci ay réalisation bi tey rek dellusiwaat nañ ci loolu foog naa bu ñu fi doon toog di ko lim fii ba bët set du des waaye xam ne ni aussi am na ubbi goo xam ne mi ngi commencé am ci ay nomination yoo xam ne am na ci dëkk bi walla ci département bi yoo xam ne mus fee am kon la ka si itam nañu rafet njort te am na yoo xam ne mi ngi ci aw yoon waaye loolu nañu xam ne jàpp nañ ko te ñi ciy dox ñi nga ciy dox mënoon ak sëq ay kilifa di ko weer ci mbedd waaye li leen ñaan mooy yéen ñëpp ngeen am confiance xam ne yéen ji nga am nañ ko ci yéen ak cofeel gi am nañ ko ci yéen lépp luñ man ci jàppale leen ñi ngi ci woon te danañu ko yokku ndax ab soñeekat lu am solo la ci ab ànd ndax day tax nit ki gën a góorgóorlu